loi buy taalum réew. da nga japp ne loi bi meuna da nga japp ne décision bi meuna tal rew mi. sen politique bépp moy éliminer Sonko lepp luñuy def Sonko lañ ciy sóor loi bu lañ koo def wala décision du justice ba lañ koo def sóor Sonko loolu moy lan Sonko est un Sénégalais il veut compétir euh, compétir comme tout le monde. Sénégal foo Afrique foo dem ay yawandare fa ne

lu ngeen bëgg conseil constitutionnel wax man fekk bi 74 France quand Mitterrand def ko président du conseil constitutionnel son ami intime membre fondateur du parti social mu ne ah, président du conseil constitutionnel mais je serai obligé d'être ingrat vis-à-vis de toi ingratitude nommé mais neex du droit mais ñii lii ñu def. mais mais est-ce que li ma la wax gannaaw lii dara du ci dëgg depuis les parrainages ba léegi. dara du ci dëgg léegi mbir mi am na problème sooxe na Sonko ngi xëcc fii ñee ngi xëcc fee léegi nañu toog waxtaan gis ngeen Sénégal au niveau réew yi nu wër yépp a ngi tàkk ñi ngi renforcer les frontières bis bu nu amee problème interne rek gars ci biti ñëw fekk sunu te ak daay la ko fayu ko de. léegi lan nga gissé foofu la foofu la bëgg waxé li Les titulaire yi ñu nangu benn. waaw nan lañ mëna accepter ay titulaire euh, suppléant euh, euh, supprimer ay suppléant ay titulaire nango ay suppléant ban réew la am mais ça c'est une mascarade juridique amul sens on ne peut parler de suppléant que quand il y a des titulaires jàng leen s'il n'y a pas de suppléant il n'y a pas de titulaire et inversement le texte texte bi c'est un tout dénk gannaaw bii baaxut bee munta baax réew mi bu tàkkee kenn xamut kan mooy mucc ak ku dul mucc te li ma bëgg a wax yaa a des gens dans l'histoire de l'Afrique qui se croyaient très forts comme li sa ba keroog ba ñuy génn seenum réew dañoo wéxu li sëñ Abdoulaye doon wax président Afrique bàmmeel baa ngi nii wala wex waa ngi nii loolu nag nañ ko éviter waxtaan Macky Sall li ma koy digal mhm. yàlla fexe na bam na xool fi mu jógee ba fi mu agsi soree na lol. amna 12 ans étant président légui na def fichier bu ñu def élection yu bax en 2024 du bokku bu ko nexé nak am ku indi kenn du ko ne bul indi kenn ku ko nex mu pare na la indi waaw lolu amna ci droit mhm. mais na def élection yu réew réew mi ni ko ko joxé won mu bayé ko ni ci loxoy nit ki Sénégalais yi bëgg bu Sonko xëyrun bu yow mi dañu bayyi bàyyi yi ak layam layam yi Sénégal fii kenn mënu fee nax sa morom man loolu laa ci amoon. alors alors c'est clair.